حاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم توبا الحمد لله لذي الملوك رب الورى معلم السلوك وبعض للصلاة خير الخلق سيدنا محمد ذي الحق يين مريد ستم مريد الله موي ديتي واي خلا خليل الله sayqu suyooqi saahibul xayraati samsu sumoosi sayyidu saadaati baabu dalini ko surajullaahi xawsul wara ibra baabullaahi sidi birahim lamp faal kamaanu abal taqiyi sayyidi rijaalu moo seqi lañ ci yàlla sàqi leer ya di xotti day lay yàlla ak ngir moo nu xamal kii nu si ahmada bu dul moom jàmm nu abada yar kàttanug yàlla di fal di folli di seqi jéego ko ana sey jolli di sippi saf yéen ñu safoon ci xol yi di sëfi saf yéen sippi woon ci xel yi ku seytaane safoon sa xol mu sippi daggi sa xol bëree ni ngëm yey xippi moo tax ba tey xol yëpp nee nañ meng gàmbal ca kàddug seex rafaal ne fàng kenn réeratul kenn réerawul sëriñ bi ku dul ko yàlla dàq xol ba tàbbi góor ñëpp maase nañ si mil comme sàpp ca géewi yàlla dayoom amul ab app faw xana góor yi yàlla ba sàkki góor ci jamonoy dajaalu moo gën a góor maxrif lay defal góor àggale góor Seex Ibra moo ca man góor day àggalee góor ba ñu dem ba àgg te du nu julli du nu woor te màgg kenn amewul kattan ni sii di mbër ma kenn mës la gis ku mel ni moom ci war ma teg na sëriñ bi ca bara barabu boromam sëriñ bi géttil Seex Rafaal moroomam Sidi Birahim waaji ko noonu xal ko tab bi safaanum gaañu ko sopp gëm ko yàllaa ko tegtal mboor ma déy ko mbóot ma mu xotti ngirum yàlla lal ca war ma ko xotti war maam yàlla teppi say jëf ko ci mbooram yàlla yéege sawlef alhamdulillahi ku santul beew na Cheikh Ibra Fall ko ko gannaaweel sew na ku jëm ci yàlla waaji ko topp jàll waaji ko noonu xol ba dootul sell te kenn jotul seex ra ci topp yàlla xawsul waraa kii moo di góorug yàlla gétti na góor ña naa ni leer ba man ni ba xotti dey lay mbër ma wóotu am di moo tax mu xam sëriñ bi xam gu yàgg ca yow ma alastu lañ diggaalee jàgg daa yàgg ñëw ci addinaak melom mi kuñ mës a yónni moo la xàllal yoon wi billaahi wallaahi tallaahi ku bañ Cheikh Ibra Fall buur yàlla daal di koy fuñ waa ji ko noonu la mu jaamu yàlla mbaati mu jullil Mustafa xat jàlla du gis ca lam jaamu lu toll ne sarra noonu ko wóoru sopp leen Cheikh Ibra sëñ Bamba nee ku noonu Cheikh rambër ma yàqu la toppay doon sërub jëhannama derub rijaalun léehi dañ koy tooke waa ji ca teg baat yàlla ngay attaqué ku wul yàq derub góor yàlla doo àgg doo àggale ñey mooy yàlla kon bàyyi leen segg mbirum xaliilu ku fu ñu Cheikh Rafal amul wusoolu may yéen ko may ko koy lijjanti lëj le ku jéem a dingat lef ma daal di yàqule mbirum rijeelu léegi duñ ko càmbar ku weddi waaye yàlla mat naa caw yar nangu dogal ma nga ca ponki diine ku nanguwul ni yàlla débbul yéene loo yéene mboot ma daal di des fa yàlla ndekkal fa ñaay nangu dogal ngir yilla lu teeñu nangul Cheikh Rafal mayam yi yi ku yàlla boole nga weesu xel yi di xuus ca mulkeeg malakoot not xol yi Seex Ibra Faal not na xol yi rijaal yi xol bu ko soppul sàññi wuñ siddiit yi kuñ sàññ say siddiit yi xol nga xoole di for ca mbóoti sa yi rijaal yi kon sopp leen baabul muridullaahi xut bu rida xalla xalilullaahi ku sopp waaye yàlla génnoo yàlla ku noonu waaye yàlla doo am yàlla fa yàlla ne xel du xalam ba daj ko xol rek a fay àggale góor mu yëg ko te góor yàlla yéegi góor fa yàlla ku may ka lay yéega du gis buur yàlla ke yéegi góor ñaay sa bàyyib abdou sakoor sidi birahim bàyyib sërif akay góor gétti na góor ña naa ni leer ba man ni ba xotti day lay mbër ma wóotu am di gédd na góor ñooy kumbalul wali yi ba sàkk góor ñu gën a gaaw di yi Cheikh Ibra Fall yaa di sagub sëriñ bi yaa fàq xàll wi gën ci dun bi dee su ko tëkkalee ka teg di xayma ci génn góor loolu du xeeti war ma sàkk na mbër yooyu làmm jën fi wàlli danañ ko ubba ëtti géew ya làlli koy wax na wax ci ñi te bàyyi xàll la te teg ko fam te xaadimu rasul la Cheikh Ibra Fall dayoom xajul ci xel yi te aw meloom namm na mbooleem xol yi moo tax ko koy dingat ci ñàkk julli ak ñàkk woor moog waa këram ñam wàlli déggul sëriñ bu mag ba sanc Tuubaa yowmal qiyaamati du tàbbi tuuba sëñ bamba ne mboolem jumaa yeeg jàkka ak seeni pay méng na leen ba màkka man lëkke nii maaliku kun la jaamixe wa kulla masjidin mu naal ma jaamixe kon ku ko dingat lu mu jaamu yàlla du gis ca lam jaamu sarra neen la te fu mu dëkk mu yàlla koo ko jagadi te lu mu julli baa mu woor mu saxadi se Ibra Faal Sidi Birahim Faalu fajal sunuy haajo na ñoo la wóolu ñàkkoon lu baax ñàkkoon ñu baax yaa màgg ku lay xebet xolam du gaaw a àgg sëñ Bàmba ne mbooleem bëggu rijaali bur yàlla may na ko ko sil kamaali man la kenn xubbu rijaalu léegi mox ji la ku la xaasidin walleegi nee na rijaal yi ñëpp moom lañ sopp te waa kay koy añaane rus na xepp te kenn jotul Seex Ibra Faal ci sopp bëggam ka daa sar wër na réew mi mépp kon nan ko sopp ngir la mu sopp Bàmba mbaa la ko Bàmba sopp fay ko bor ba nun sopp nañ la yaa xaliilallaahi te bëgg nañ la ngir xabiballaahi ñàkkoo ci yàlla benn cër ñàkkoonu yaxraqal umoonu yaay génn góor ne yaa di bàyyi góor ñi aboori jàll weesu nga mbooleem gor ñi semmal nga mbooleem ku mën loon wali yi ci waxi mbër ma ahmadul pakki yi subhaanallah yi maa ngi sabbal mbër ma sabbal gu sax ci sama xol te bér ma ci nii mu bind siidi ibrahima te muy sunub cër yàlla mooy xakiimu Cheikh Ibra Fall mbóot la mu yàlla yëgle yàlla nañ ko yëg fuñ ndax nu jagle ku ñëgalul mbóot ma nga daal di weddi ku weddi waaye yàlla doo gis am di ngir yàlla xam di mooy ndawam lam yónni muy ndaw lu mat ndaw lu matal lam yónnee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 fa kullu ma yasarta wa tayassara ناجاك عبدك قديم عبدك متجيا إلى المنى من عندك تعت الذين تهدى بالخير وما من لم يسدى بدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجيم شيخ الذين تركوا لبعدا لنار من من لم يتق أبدا تعب من أراد أن ينخدما أبرم من ضيف لم يدما جزاء من بارز العرش بكى كل من أكاوس الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة لا جزاء ما سنوى بطونهم سكانا قارب والكل منه من شديد سربا للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أسب أهل السلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسدهم مقلدون من عام توى بلا استلاب والكل بالبصر سن خلاب رجاء محقق وملكا في أبد ما لا يراه ملكا بنام يالا وليس ينسفل أما مبارس الأليف منسفل بالله آمنوا وأسلموا معا وتسنوا لوجه باق قمعا بالله يا من واسن مها وانتصنا لوجه باق قمات والإله وهو رحمن وهو رحيم ولو الأسمان نيلان فامد وسكر ساق متن للمصطفى الحب سكر فارق جملة من المباغ لمن كفاني يسوي النباغ أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني العرب والجدال أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني العرب والجدال سبحانه وهو الكريم والأمين وكل من لم يغني فهو كمين تسليم من لي لا يوجه دررا على الذي به كفاني القرر جزاء من جل عن المثال لي قاد ما قاب عن الامثال الحمد لله بلنجاي على ابن عبد الله سلباي منعت المختار ليس تخاف إلا على من بنكال يخاف للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا باق فزغ ولي لايك سزغيدغ ملكت ربي مالكي كليتي علي لا كمالي ونيتي ملكت ربي مالكي كليتي علي لا كمالي ونيتي ملكت ربي مالكي كليتي علي لا كمالي ونيتي ردت بالله وبرسولي من قال فلق ونلت سولي بلاني الله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي دم براني من أي بنفسي بنبي صلى عليه بسلام منبي هو الذي لم ير قيده ولا أراه في زيند ونولا محمد صلى عليه بسلام وزيلتي له ولي قاد الكلام فرغني الأكرم تفريحا يدم بأنني حل وغيب وخديم لوا قطابي وما لك دارا ولسوانا وجعل قدارا أيتنا على لدى فقلبا ولسوانا ساقرينا انقلبا تقديم باق قاد لسوابا على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني الخديم لو سلام سي البرية القديم لمن لوى كليتي بعدا عبدي ومن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مباي لي قاد ما قاب عن المباي ناجاني العليم والقبير وجاد للواسع والكبير رغد الجميل نعم نافع أعلاني الملك ورافع ساق مكاره لمن قبلنا مدرتي من يقود منا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك li ci yonent bu tedd bi di sant Serigne Touba di sant Maam Mor Jaara borom Saam di sant maam si maam Cheikh Ibra Fall léegi nag cant ngi ñu delloo ko ci Serigne Mountakha Bassirou mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba ñu ngi koy ñaan yàlla na fi yàgg te wér ci barke Yaaru Sóorulaay di ñaanal Isma xalifa Mamor Diarra mu yàgg fi lool te wér ak i rakkam ak ak njaboot ak Mamor Diarra borom sam gépp di sant Serigne Abdou Mbacke nag ak sëñ Baara Khourédia sëñ Seexam sëñ Baara Khourédia kon kontaan dugg na ci mbir mi ndax mbir mi dafa yàgg lool te fan. te yàgg gi ay xale yu ndaw rek ñoo ko formé woon. bi ñu formé daayira bi seeni mag a ko njëkkoon a formé bi ñu demee ci Serigne Saliou Mbacké mu ñaana leen ne leen daayira bi day jëm ca kanam rek ñaan googu nag moo topp daayira bi ba xale yu toogaatee ba El Hadj Baara toog di xalifawaat ci sëriñ tuba di sët toog ci xalifa gi moo tey tudd tey daayira bi tur wi ci nekk tey waaw kon sant yàlla mënut a weesu lii. ndax ba ñu koy def ngeen toog tey jii yéen ñi di koy def ci ay juróom-ñaari at ngeen commencé woon di ko def tey jii ba lii ñëw kon ñun sant yàlla rek la def ji leen ñaanal ci kattanal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak yokkute ak naataange te yokkute ak naataange rek na moo ci am ndax li tax ma ne leen yokk ak naataange ci am Serigne Touba ku koy liggéey rek da ngay gën a jëm ci kanam rek ndax moo wax na yëkkati ku leen sëñ mu taxaane bu mu laal suuf waaye yéen dootu leen laal suuf de ñaan nañu ko ci ñaan ko ci barke maam Mor Jaar ak Serigne ñaan ko ci maam Cheikh Rafal ñaan ko ci Rasulullah ngeen gi mbindéef ki bind ñëpp ki tax Serigne Touba ngeen gi mbindéef ki nga xam ne yàlla moo ne Rasulullah tax ma bind jaam yi kon daayira bi yàlla na yegg fa ngeen bëgg mu yegg fa te ngeen ànd koog kattan ànd koog yërmande ànd koog wërsëg wu yaatu lu ci waaye def ren de bu déwénee yàlla na nga def lu ko duubal ci ci barke yaa Rasulullah ci barke Makka ak Medina sant naa leen nag ndax man de am naa ci kontaane man mi ko àndoon ak yéen ba ngeen di tuuti ba nëgën si kon tey su ngeen demee tey jii ba ngeen xam ne fi mu ne nii yéen lu bëri yéen a ngi koy defal seen bopp kontaan rek lañ ci def di leen ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram di kon ñaanal jëwriñ ak i xarit tam ak rakkam ñi mu ko bokk sant rek ndax Lamp Fall dafa bokk ci liggéey Serigne Touba te liggéeyub Serigne Touba ku ci bokk ñu la ci daareb Serigne Touba ak Mame Mor Diarra ak Mame Cheikh Ibra Fall kon danañ ci war a kontaan lool ndax Cheikh Ibra lépp te Lamp Fall ci moom la wéeru ndax lépp Seex Ibra Fall la waaye Lamp Fall ñu ngi leen di ñaanal yéen it ak yokkute ak naataange ak xéewal ak ngëneel yoo xam ne ci barke maam Seex Ibra Fall day law rek muñ laal suuf de ndax lamp moom lampam ñëpp ndax lamp lampataal yoon wi ba yoon wi tey jii foo walbatiku maam Cheikh Ibra Fall kon Lamp Fall boo di yónnee fii ci délégation bii ñuy defee surna xasaayit bi am na fi place te yàlla na yàlla yokk place bi def fi xéewal yu yaatu ci barke yaa Rasuulullaah barke sexin sa jenn تيسير العسير في الصلاة على البشير النظير بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكر به المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسما كبدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون طير خيره صل وسلم وتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا wa huwa alladi sammayta bilbahaai walaali walsaxbi bila intihaai wa kun muisani bi xaqi lazbala wansur alayna barakaati albasmala wasalli ya rahmaanu wal tusallimi ala annabi habibi kulli muslimi wa huwa alladi sumaatuhu mudiu walaali walsaxbi wa man yudiu wansur alayna barakaati alfatiha wajal qilaami xayra baabin fatiha وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالضياء والآل والصحب ذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وخيرها من كل باب النار والخس والخشران والشنار وصل يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي wa huwa alladi sammayta bil maljai wal aali wal asaabi washkur lajai wa huwa alladi sammaytuhu bil maljai wal aali wal asaabi washkur lajai wansur alayya barakaati lmaai aali imraana fi lxaali wa fi lmaali bi xayri aafatin wa xayri kadari yaa dal qadaa wal waraa wal qadari wa salli yaa quduus bi tasliimi ala nabi madinati l ulumi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 وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فكدت ولمي وهو المسمى صاحب الرداء والآل والصحب المزيل الدائي وانصر علي بركات المائدة وجل حياتي يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المسمى صاحب اللواء والآل والصحب على استوائي وليهب بشورة الأنهام كونك لي بالجود والإنهام وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد دعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم من غر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات جبريل محمد إلي قاد الله مالي قادا مسانسها لغيري انتقادا لي قاد الله مالي قادا مسانسها لغيري انتقادا لي قاد الله مالي قادا مسانسها لغيري انتقادا لم ينهني إنكار أو جهود وانقاد للإيمان والتوحيد لقنني الله لسان العربي ساقمة للهاسمي العربي لقنني الله لسان العربي ساقمة للهاسمي العربي أجابني من ليس يخفى سيئه عليه بالرداء أتاني الفيء باتس الجلال والإكرام جمعها المرسل للكرام جاه ورتبة مع الإكرام تسل للمنى بلا انسرام بركة ومكنة مع السلام جمعها أمين وعيس الكلام ردا ورحمة بلا انقطاع qidat ila jibrin almuta'im ridan wa rahmatum bil inqita'im qidat ila jibrilin almuta'im yuqri'uhu minni salaman lahu قدحا ولا إله إلا الله له من الله الكريم أطلبه فوق المنى بفله لا تسلب ملكني خير الكلام السمد وقادني به له محمد أميت ربي على خير الورى وقادني به إليه السورى ملكت ربي به قد يديه وجاد لي بجاهه بالأفيد ملكني ربي بجاه أحمد كتابه وكل ما لي حمدا بحال سكر الله ما لي قادا الله وعده فلا انتقادا بحال سكر الله ما لي قادا الله وعده فلا انتقادا دعا لسكر الله ما لي قادا الله وعده فلا انتقادا tabaraka wa taala alayhi salaamullahi taala sallallahu taala alayhi wa sallam anni abadan allahu allahu qilli abadan wallahu hibbi wa la ilaha illa allahu allahu qilli abadan wallahu hibbi wa la ilaha illa allahu له كتابي من رئيس الهرم لقاتم الهرم عند عرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لي أعد يا باتنا ليس له كفءا أعد هب لي بحق قل هو الله أعد حبات فرد خير معنم التعد يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا العين لسواي مدبراها بمحل السهر يدوم دبرا مها توجه المكاره لياها باقر هبا بسكره ووليا هنه رديت وهني رادي بلا مكارها ولا أمرادي رد لخير جات سيطانا من طيب الممر والأوتانا فر لخير جات العين يسوقها لخير المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفر وسفرت نبي توفيق هاد قاده الإلهام قد أبديا لما لهم بهام بدلي اليوم برب القياب أعسني ممن خلوا وقيب لا يتوجه للنعو مدعب أنمات مكاره وتعب سعادتي بخير ما وين كتبت wa kawniyal habdal qadim fal ci jaaraama maam Seex Ibrahima Fall ci laa tënke way wi di way Lamp Fall ci jaaraama maam Seex Ibrahima Fall ci laa tënke way di way Lamp Fall ci baabul muridiina mooy sunub Lamp jaaraama maam Lamp Fall ibrahima babul muridina mooy sunum lampu jaara mamam lampu fal raamal bamba sax ci liggéeyam la musul mooy ko jaara mamam lampu fal amul nawle moom raw na léppam la jox sëriñ bamba jaara mamam lampu fal amul nawle moom raw na léppam la jox sëriñ bamba jaara mamam lampu fal mennum xel waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi nuyu sëriñ bi bu baax te di ko siyaara ak kilifa yu tedd yi mu àndal muy rakki boppam yi ak njaboot gi yépp di bëgg lool ci teew gi sëriñ bu teew ci sunu biir ci liggéeyu sëriñ Tuubaa yi nga xam ne alxuraan xasida rekk la ca suba ba nga ni ci loolu lañ nekk. at mii ñu koy defee nag doon fukkeeli at ak juróom-ñeent tey jii ñu cërale ko sëriñ bi ngir cofeel gu nu am ci moom ngir bëgg gu ko bëgg ngir naw bu nu naw doxin wi lool ci bu nu gisee ak bu nu gisut bu ñu déggee ak bu ñu déggul teewaayu sëriñ bi ci noonu doon dimbal lool ci nun taalibe yi nuy ñaan yal na nu yàlla fayal sëriñ bi li sëñ bi mébét ci liggéeyal ko maamam Cheikh Ibrahima Fall yal na ko defee nam ko soobe tànd ko taalibe yépp ndax kat sunu yëngoog sunu dal lépp bëgg doon taalibe sëñ Tuubaa rekk la te bu nu xëppee suñuy bët xool gis lu nu nawee sëriñ bi ci liggéey bi kon sëñ bi yal na yàlla dëgëral la li nga yéene lépp yal na ko def yaag njaboot gi ak nam la soobe barki maam Cheikh Fall aram yi nag moo bokki daayira bii nga xam ne ñooy daayira miftaaxul xuyóori wal maraam ñoom ñépp ñoo àndandoo di am mbégte lool ci sa teew gii fii ci jataay bi daayira la boo xam ne daayira bu yaa ginnaaw la ci ak yëngu waaye nag fu mën a toll itam rek ma ngay jéem a góorgóorlu ci sàmmonte ci bunt yi buñ ko mën a jaare fas yéene dab dabaatal ndigal yi jëf ca lañu man lañu mënul ñu di ko jëf tey moytu lii mooy bokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi woo sëriñ bi seen yitte ak seen yene di ñaan sëriñ bi ñaanal ñu dimbale ñu kàtt nañu ba suñoom ba suñ borom aar ñu ban tege ci yoon woowee nga xam ne moom la seen bëgg ndax jaar ci li sëriñ bëgg rek kay suñu yitte luñ ci deful rek njuumte dong la waaye du suñu wareef du suñu bëgg kon faal ñi ngi lay ñaanal nga ñaanal ñu lépp lu sëriñ bi bëgg ñu nekk ca lu sëriñ bi bëggut loolee suñu yoon nekku ca di di la dalal bu baax ci suñu jotaay bii nag di ñaan nga ñaanal daayira bii seen yitte ak seen yéene ñu def ko nam leen soobe ndax daayira bi day ab la boo xam ne bari na lool lu mu lijjanti fii ci koñ bii mu dëkkee ak koñ yi ko jege ci jéem leen wàññi ci ñi def li ñu war a def bàyyi li ñu war bàyyi ñu ngi ci góorgóorlu saa su nekk di ci waxtaan di ko jëfee ci njiital aramin mbaw mii nga xam ne moo nekk ci bopp daayira bi ara nag di koo xam ne ab bi rekk la di ko xam ne bi gii mu doon amu ci xaj amu ci seen ci kër yëpp rawat na ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gii nga xam ne lépp lu waaye di def ci ak taalibe foofee rek la la doore foofa la sosoo kon nag Fall ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu ñu am tawfeex nga ñaanal ñu daayira bi jëm ca kanam kanam nga ñaanal ñu dayre bi lépp loo xam ne du bëgg sëriñ bi yàlla ñu soreek moom. ñu ngi nuyu mbokk jullit mbokk taalibe yëpp kenn gën a sa tur ak jërë sant di ñaanal suñu Muntaxa mu yàgg mu loolu ànd ak wér di ñaanal suñu Seex Amdi sëñ am di moo demee ndax xalif bi di teg ci loxol moo ës mi nga xam ne moom Cheikh bu Mbacke yebal mu teew teewaale sëñ bi di ko ñaanal moom nga xam ne moom la Cheikh bu yebal mu teewal ko fi mu amoon kàddu yoo xam ne yónni woon ko ci sëñ Fallou Fall muy ay kàddu cant sëñ moom sëñ Modou Asta Mbacké waaw mu yóbbante mu yóbbante woon nañu ay kàddu ci sëriñ bi nee na mu ngi lay ñaanal bu baax ndax nee na liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a koy liggéey ci yoon bi nee na murid yëpp seere nañ ko ndax looloo waral sëñ Mountakha saa yëgatee ndigal rek xerem daj leen neen loolu mu ngi koy bàyyi xel te saa su saa su ne mi ngi leen di ñaanal kon bu ko defee rek dañuy jàllale kàddu yu gàtt rek ndax xam nañ ne sëñ bi dafa jóge ci liggéey bi ànd ak mbokk Baay Faal yëpp ku ne xam na ne liggéey bu ñu fa yendoo dañuy sonn lool moo tax ba ñëwee rek ñu bëgg leen a yolomal ñu mën a dem dallu ji ndax ku ne xam na ne heure bi waroon naa fekk sëñ bi fatu di waajal ndigal kon bu bàyyee itam yëpp ñëw fii kon bis bi ñor gi mu ko ñoroo tax loolu nag dañ ko koy tuubal bu baax a baax a baax di ko ndax li mu def nii def na lu rëy loo xam ne rëy na ci mboole mi lool ci teew gi nga xam ne teew teew nga fi ndax bu fa yebaloon benn taalibe bu gën a xeeba ca kër ga sax bu ñëwoon fii sëñ bi dong lañ koy xoolee sëñ bi dong lañ koy jàppee kon bu ñëwee ànd ak ñëpp loolu lay mel ni def na loo xam ne wax dëgg yàlla amuñu fayam. di ko suñ suñu ak serval mi tax mi def yàlla nañ ko fay di ko ñaanal ñu yàgg fi lool daan ak wér ni ko sëñ Daam waxee rek ndax at mu jot dañuy taxawal journée xasida comme nii buñ xëyee jàng alxuraan jàng xasida jàngkat xasida yi jël ba ginnaaw timis ñu yeewee ko ba déwén te at mu jot dañ ko daan dara rajaale kilifa ci kilifa yi yoon bi ku ne xam ne na daaw ñoo ngi ko dara jaaloon sëñ Mor Talla Fall moom sëñ Laay Fall Ndar ba ca topp ñu dara jaanu gi sëñ Modou Kimane Mbacke moom sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ren gi ban ko jàppee mbokk taalibe yi waxtaan daanekat ne kat sëñ Fallou Fall moom sëñ Modou Aminta moom la ñu koy tuddee ñëpp dëppoo ci tuddee kon ko tuddee woon nag wax dëgg yàlla rëccu woon ko benn yoon ndax ku laaj ne sëñ Fall lañ ko tuddee ñu ne moom lañ tuddee bis bi kenn du ne lan moo tax ñu tuddee ko ndax defu na lu defu na jar ci yoon bi lu njëkkati war ko koo tuddee ndax ku ne xam na ne sëñ bi murit la te di dund xasida ndax ñu koy siyaara ji di dem ca kees ga koo gis xam na koy dund xasida la moo doo kon bisu xasida bi ku ko tuddee kon kenn du laaj na la moo tax ñu tuddee ko sëñ bi kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax ak mbooloo mi taalibeem yi nga xam ne ñoom la àndal te xam ne waa koñ bi ñëpp muy sunu waajur yi ak sunu kilifa yi ak sëriñ bi ñëpp bëgg nañ ci te it bëgg nañ ci teewaay bi nga xam ne teew nga ci ñu ngi lay sant bu baax ndax li sëñ bi di faral di wax rek ku ne xam na ne yoon bi benn làmp lamp te Seera Faal ko yor yoonu murit yàgg naa ko feneen fu dul fii bu doon ak Faal kenn du jëriñ ci yoon bi ndax bu doon moom kenn doxum Sëñ Tuubaa kon Seera Faal moo liggéey lépp kon kenn ki si nekk kum mën a doon ak foo mën a bokk ci yoon bi amel nga lu njukkal siibra waa këram waaw la may faral di wax am murit saa su nekk bu nee daa bëgg suñ daa bëgg Seera Faal te bëgg nga ko bëgg saa su ne da nga koy wax te njabootu Seera Faal ne fi njabootu suñ ne fi te bëgg googu fësaloo ko ci ñoom kon li ngay wax des na. kon moo tax ñun saa su nekk ñu góorgóorlu li fi Seera Faal baax li fi suñ daa bàyyi ñu góor ko suñu képp laay di feeñal suñu yéene ci njabootam gi mu baax ndax gisuñu suñ daa ci saa gu ñuy séebri ci saa waaye ay njabootam ñu ngi fi kon nan gën a góorgóorlu bu baax. ndax amaana ñun ay nit sax day ñëw naan ñu xanaa Baye Fall nga ñan chaque jour ma dégg am na ñoo xamante ne jàpp nañ na ci Baye Fall lay jébbalu du jour nit laaj ma ko te man waa kër borom Sam laa ku ma ku ma xam xam ne damaa liggéeyal sama sëriñ ba mu gërëm mu si Abdoulaye Mbacke moom si mu dus dama koo liggéeyal ba mu gërëm ma ni ma xam de seere bi seblaat mii mën na maa seere seblaat mii day day rakk sebla seblu Mbacke ànd ak i rakkam muy sëñ Abdou Salaam mi ngi toog ci baas bi ak sëñ Mbàkke ak sëñ Moussa Ndiaye ku ma xam ca kër ga xam na dama fa dama fa liggéey ba sab sëriñ bëgg ci man woo ma gërëm ma sant ma waaw te loolu yàqul dara ci ni nga xam ne noonu laa war a doxee ci kër Seera Faal ndax ku nag xam na ne sibre mooy yoon bi sama sëriñ nag mu nekk koo xamante ne day dund sibre dund gu wér ndax bis bu yàlla sàkk dañuy sàmpal ci kër ga ndax keno yi nga xam ne moo téye mbaar ma keno gu mujj nga fa mujjee tudd barke dem moo njaay ban fay sàmfaal da koo tuddee nee na serfaal lu tuddee benn keno bi mbokk taali bi am na ñoo xam ne fekk na jotaay boobu noonu muy keno bu mujj ba nekk ci digg ba nee na lu tuddee keno boobu noonu kon dafa mel ne kër yëpp benn la ndax dañ naan yoonu murit bu doon oto Rasuul bi ko doxal mooy kër séebra ndax amaana lii sëñ bi bëgg ci ndigal ñoom ñoo koy mën a jotale li ñuy jëf tamit ci ndigali sëriñ bi kenn amul kenn koo xam ne mu ngi jëf olof ñaar nag day wax ni maanaam ah, kenn wax sa mbaaxu mborom du wàññi sama mbaax dara ndax ñun bu yàggu rek tëdd naa fi entré hôpital fii ci hôpital bi am na ci ñoo xam ne suñu àll mi sama rek moo doon taxaw ba ma génn ñu ne ma boo bàyyut am nañu boo bàyyut Baay Faal yi doo xamul looy dal topp gi ma topp Baay Faal yi dama cee dégg lu ne. waaw non boo boo boo bàyyut Baay Faal doo xam lu lay dal barke maam Seere Faal waaye mënta wàññi dara ci sama pas-pas ci ni xam noonu laa war doxee ci sama diggante ak Seere Faal ndax man xam naa li ma jariñ ndax ba ma leen avant ma may jaxasoo ak Baay Faal yi fa ma tolloon ma ma jox soog ñoom li ma yokk man xam naa ko kon dañuy sant baax Fall bis bii ñu la tuddee mbokki taalibe yëpp ñu waxtaan ba dëppoo ko ak sunuy kilifa ñu doon la ko tuddee kon ñu ngi lay sant bu baax a baax Fall leneen ñaan la suñu borom yàggal la fi ndax li liggéey ci yoon bi ñëpp teg nañ seen bët ndax olof Njaay dana lu na fàng kenn du ko jeex te seen asamaan moom jurut bu xante kon ñu ngi leen ñaan yàgg sa rek yi nga àndal ñëpp rek daanaka su ma limee damay juum yàgg sa jëwriñ ju baax ji moom du njàmbaaru lool ñu ngay ñaanal baax sëñ Moussa Fall ak mboolem rek yi topp ci ginnaaw kon ñu ngi jégg lu baax kàddu yu baax ndax ban xëyee ba tey sëñ Abdou Roqee Fall ñëw na fi sëñ Mor Talla Fall rek sëñ Cheikh Mouhaïmoun moom sëñ Mourtada mboolem kilifa yi si rafaa rek ak waa kër sëñ Baay ñëw nañ fi man la koy seeral baax faali arab kon ñu ngi jégalu baax kat yi nga xam ñu ngi yëkkati kenn ma sëñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah daa agsi léegi nuyoo te sëriñ bi bëgg ko won ne ko kat dañ ko bokk ci yëg nan la moo tax muy laaj ba xam ana fu mu toogee waaw wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu leen ko ah loolu ka bokk na ci nuyoo <laughs> waaye ñaan gu toll noonu da ko ko ne ñëpp lay fay. nee ñaan gu toll noonu nii nga wax ko ci làmmiñu jàmbur nañu la tontu wax ci làmmiñu rek. waaw su la waxoon boo ko waxoon ci làmmiñ nga nàmpit ni tekk ni tekk mbooloo mépp fay. mbooloo mépp lay fay ndax dañuy jàpp ni kon léegi ci lañu. waaye asalaamu jàmm. waaye asalaamu jàmm. asalaamu mucc. asalaamu mucc. aleykum yàlla nekk ci yéen. aleykum yàlla na nekk ci yéen. yéen amiin. waaw te waxee ko noonu waxee la. te waxee ko noonu na nga xam dama ko wax ci wolof. Ah, mbooloo mépp lay xoolaat. mbooloo mépp may xoolaat. loolu la wax nag. ne loolu nag la sëñ lu wax. xam nga làmmiñu jàmbur laa yor. làmmiñu jàmbur kat la sëñ Moustapha ni moom la yor. kaddu jàmbur lay waxee. kaddu jàmbur it lay waxee. ndigalul jàmbur lay waxee. ndigalul jàmbur it lay waxee. lu méttee ma dal la. nee nag moom nag lu méttee ko dal. ndax wax ci jotaayu kilifa. ndax wax ci jotaayu kilifa. dëgg dëgg murit. dëgg dëgg murit. bu dara damul ca moom. te bu dara damul ca moom. ko waxal. la ñu ko waxal de amewul nañu ko waxe ndax dëgg-dëgg murit moom bu nekkee ab sëriñam. ndax dëgg-dëgg murit bu nekkee fépp sëriñam. kàddoom dafa war a soppi. kàddoom dafa war a soppi ko. waaye loo neex def ko loo wax ko waaye nu la neex def lu la neex wax. waxee ko nii. waxee ko noona. loolu day du dëgg-dëgg murit. suñ la yónni woon yow rek. ñaar la yónni woon yow rek. ma ma fekk fi murit yi. ne mu fekk fi murit yi. kon nu ma bëgg a daggee murit naa kon nu mu bëgg a daggee murit yi. dana ko ni daggee. waaye nu ma waxee nag. waaye nee na nag nu ma waxee. lu wax ji jub jub. wax ji jub jub. ki may waxee la ma gën a juble. ki koy wax loo moo ko gën a juble wax. kon wax faaw mu jafe nag kon moom faaw waxam jafe ci noonu. waaye fi ñu tàmbalee suñu baar mooy alhamdulilah rabbil alamin. waaye nee na kat fi tàmbalee mooy alhamdulilahi rabbil alamin. Hmm, sëñ xarit mi ak say bokk. sëñ xaramin yaag say bokk. daa bëgg soo waxee ba mu daanu ma soog ci article bi ne boo waxee ba daanu rek waaw baax na. daayira bi ñu tuddee. daayira bi ñu tuddee. bi ñu tuddee. tur waa ngay tur wii di Miftaahul Xuyóor wal Maraam. Ah, ah, ah. yéen waa daayira bépp nag. yéen waa daayira bi yëpp. nga bi ma jógee di ñëw. moom day bi mu jógee di ñëw. damaa ñëw ngir sama baatu kilifa. daa ñëw ngir baatu kilifaam. te ñëpp lay waxaale nag. te ñëpp lay waxaaleel. maa ñëw bi daa dis ci ñëw bi de dafa dis ci noonu. su dul woon liggéey bi nu nekk. su woon liggéey benn ne. kon dana woyof toy. kon dana woyof toy ci noonu. te dana ko yaatale nu ne. dana nu ko yaatale nu ne. ndax doo woote ay kilifa yu bari. ndax doo wootee ay kilifa yu bari. wooteel sunu kilifa nag. wooteel sunu kilifa nag. dégg nga ne wax ne bis ko ñu ngi ko tuddee ko ay ay kilifa yu bari. nee na. tudde na koy yaa wax léegi kat ni tudde na ngeen ko ay kilifa yu bari bii nag ngeen tudde ko Serigne Fallilou. bii nag ngeen tudde ko Serigne Fallilou. kilifa yooyee ngeen ko daan tudde nag. kilifa yooyee ngeen ko daan tudde. kilifa jàmbur lañu. kilifa jàmbur lañu. ñenn yilif. ñenn yilif. bokk noonu noonu. bokk ñoo noonu. noonu kilifaa ngi. noonu dëgg dëgg dëgg dëggi. gorsa dëgg dëggi gorsa. loo séddee kilifaam lu nekk. loo séddee kilifaam lu nekk. moo ko gënal loo ko séddewul. moo ko gënal loo ko séddewul. moo ko gënal loo ko séddewul. moo ko gënal ah, loo ko séddewul. turandoo sëriñ Tuubaa Abdul Ahad mii. turandoo sëriñ Abdul Ahad mii. sëriñ Tuubaa sëriñ Abdul Ahad turandoom wii toog. noo ngi lay seeral kaddu yi. noo ngi lay seeral kaddu yi. yii Falilu di jottali waa bi. yii sëriñ Falilu di waa daayira bi. ak sëñ Khalifa Diop mi nga xam mii nga xam ne. nekkal na fi waa kër sëñ Omar yëpp. nekkal na fi waa. kër sëñ kër sëriñ Omar Diop yëpp. ñoom xam nañu barab bi bu yàgg yàgg. nun xam nañu barab yi bu yàgg yàgg. bi ñu ñëwee ba tolloog mbooloo moo xam ni. bi ñu ñëwee ba tollook mbooloo moo xam ni. ñépp ay ndaw la ñi ci ëpp ay la. ñi ci ëpp de ay ndaw lañu. moom sax ndaw la ndax ndaw mooy ku jëf jëfi ndaw rek. ne sooy boo nga ni ndaw lañu rek ndax ndaw mooy ko def yëfi ndaw. muy football ya. muy football kat ya muy ya waaw di mbooloo moo xam ne. di mbooloo moo xam ne. nodd nañu timis ñuy dégg. duñu timis ba ñu di ko déglu sax. nodd nañu timis ñuy. Ah, di ko dégg. kenn bàyyiwul la ngay def. bàyyiwul la ngay def ca ñoom ñooñee. dem wuy ji woote boobee. diglu ñu woote booba. dem wuy woote boobee. dem wuy woote bàyyi wuñ lañ doon def dem wuy ji woote ba. te ñi ëpp. te ñi ci ëpp. soo leen wooyee. soo leen woowee. yoonu murit la ñuy wuyoo. murit la ñuy te boo leen ay yéefar ngeen. te boo leen nee ay yéefar ngeen. ñu lànk. yàlla nag. liggéeyaloo yàlla. jaamuwoo yàlla. jaamuwoo yàlla. lu la jiñ lu ñu la jiñ lu dul ab yéefar. moom nga moom nga de booba. daa métti nag de. daa métti nag de waaye noonu la de. ne ba nu leen rombee. xool bu tàng jër am. ne sëñ bi moom xool bu tàng jër la ci am. ci biiram. ci biiram. waaye du waaye du ko feeñal. waaye nag du ko feeñal. waaye gisul lu ko neex de. waaye gisul lu ko neex de. waaye gisul lu ko neex de. nga xam seen nga xam ne ñoom de seen way jur ya balaa kenn wax ak ñoom wax ak balaa kenn wax ak ñoom kat wax ak seen i way jur ba noppi. ndax ñooy football moom. ndax ñoo ñee di football. kenn joxewu ci ab reer. joxewu ci ab reer. doo joxe añ doo joxe ndékki. doo joxe añ doo joxe ndékki. kala koy jox nag. kala koy jox nag. gàddul la ko. gàddul la ko. moo yow ànd. moo yow la nga doon rek la doon. doon rek lay doon wax na dëgg de. ku fi bàyyi ndigal ku fi bàyyi ku fi bàyyi. ndigali sëriñ ndigali sëriñ Touba yii. di ndigalal sunu borom tabaaraka wa taala. di nga fat ko. nga fàtte ko. ci sa biir yow nga fat ko. fat ko ci sa biir. di ko jox muy yow mi ko fat ki bàyyi loolu. nga di ko jox lekk ak naan. xam moom nga faral. yow kay da di wax di yàlla yow moom nga faral. ndax nangu na ka ka bàyyi yooyu. nangu na ne ka bàyyi yooyu. nga bokk la bokk ak yow. nga ba ko yow. nga ba ko yow ba noppi nag di ko di ko yoral ko léppam. waaw gaa ko gàddu lépp nag. ginnaaw yaa gàddu lépp. la mu nekkee neex na la. la mu nekkee neex na la. na xool sëriñ Fallou ba méttee woon ci biir. ni xalub sëriñ Fallou ba méttee woon ci biiram. mu muñ ko. mu muñ ko. rek ngir jëm yàlla. rek ngir jëm yàlla. rek ngir jëm yàlla. bi mu ñëwee ba ci ba ci mbaar mii. bi mu ñëwee nag ba ci mbaar mii. bi mu laataa wàcc. bi mu laataa wàcc. daa fekk ñuy julli timis daa fekk ñuy julli timis mu ne nekk ba sëlmal mu ne nanu nekk ba ñu sëlmal nu door a wàcc nu door a wàcc xolam sedd na ci mbooloo mi mu gis xolam sedd na ci mbooloo mi mu gis bi mu ëgsee te wàccegul bu ñu ko teeroon teer bu mel nee bu ñu ko woon teer bu mel nee ni ndaw yee mu romb ni ndaw yee mu romb xolam dana gën a métti kon de xolam dana gën a métti lool. kon lu mu ko nëbb nëbb rek. kon lu mu ko nëbb nëbb rek. dana ca feeñas lëf. waaye fii ne kenn xamul kenn xamul naqari waaye fii mu nekk kenn xamul naqari na koom déet. dégg dégg ngeen ko noonu. dégg ngeen loolu suñ bi wax. nga nga xay kon nga xay da nii. nga xam ni kon mbooloo mu toll nii. Ah, ñëpp jëm ci seen borom. ñëpp jëm ci seen borom. day suuxat xolub ñu suuxat xolub ñu baax ñi. maam fu ne rek xam nga fa Sëriñ Fallu bàyyi ko. xam ngeen fa Sëriñ Fallu bàyyi danoo yendoo liggéeyal sunu borom. danoo yendoo ndax Sëriñ Tuubaa lañ doon liggéeyal. bu fa jógee nag. mu fa jógee nag. ñëw nag yem ci mbooloo mu toll nii. ñëw nag yem ci mbooloo mu toll nii. muy def la ñam bàyyi def ñelam bàyyi ko doon def. am xelam dana dal. am xelam day daal di dal. waaye su doon ñee ndaw yee rek kat. waaye su doon ñee doon ñee ndaw yee kat. nga xam ne tey jii kat laa juma. nga yaakaar Serigne Touba. nga yaakaar Serigne Touba. ki fi nekkal Serigne Touba wax ne. ki fi wax ne. bu kenn defati nangam. bu kenn nangam. ngay def nga nekk ca loola di ko def. te xam ne yow kat lee nga dee. te yaakaaroo fa kenn ku dul Sëriñ Touba. te yaakaaroo fa nga jëm ku dul Sëriñ Touba. loolu daal def koy daa boole di nax ak ñu di la nax. ku def loolu. da boole ñu di la nax ngay naxe. ndax fa nga nekk. ndax fa nga ne. wóoroo foo nekk na nekk. lu toll ndigalal Sëriñ Touba lu toll ni ndigalal Sëriñ Touba. mu bàyyilu ko. mu bàyyilu ko. murit bi murit bi. bu ne woon jàkk la mu jëm. bu doon jàkk ca la mu jëm. te Sëriñ Touba diige ko. te Sëriñ Touba diige ko. muy xéewal gu dul jeex ba faw muy xéewal gu dul jeex ba faw bëtam tege ca bëtam tege ca kon la mu doon def kon la mu doon def te du bëggug Serigne Touba te du ma bàyyi loola waaw waaw ñàkk xam rek waaye nag waaye nag ba ko Serigne Fallou rombee la muy métti métti waaye nag ba ko Serigne Fallou rombee la muy métti métti ci xolam muñ na ko rek muñ na ko rek ba ñëw nag ba ñëw sunu borom fayee ko lii seral xolam bi ba mu fàtte la ko naqare woon naxar wa dañ na isa yéen a ko dindi de ndax murit yu góor yi ndax murit yu góor yu jigéen yi mu fekk fii ak defeenu lislaam yi ñu ko def ak defeenu lislaam yi ñu ko def soxna yaa nga ne beru soxna yaa nga ne beru góor ñaa ngi nii beru loolu de mooy bëggug Sëriñ Tuubaa <coughs> ne xasidaam ak sunu borom ji ñi di jëfandikoo ñe leen di jëfandikoo. bu ñu ko doon defee nii. bu ñu ko doon defee nii. noo jort ni. ngi jortu ni. kon xewu Serigne Touba yi dana kon xewu Serigne Touba dana gën a bari de. ndax lépp nga fa moom. ndax lépp nga fa moom. ku ko defal li mu bëgg. ku ko defal li mu bëgg. faaw la nga bëgg sunu borom. faaw la nga bëgg sunu borom defal la ko waawaa waaw. kon sëñ Aramine. kon suñu Aramine. mbaw Mbow. Mbow sëñ Aramine Mbow. ah du ma am Aramine Mbengue nag moo tax. waaw tuuti ma ni Mbengue sax <laughs> sëñ Aramine Mbow. yaag waa daayira bi. yaag waa daayira bi. Ah, xam noonu murid yi ànd ak sëriñ bi. noonu murid yi ànd ak sëriñ bi. Ah, aw nit lan ni lanu yu ba jar. xam nga lu nu tax a ñëwam. xam nga lu nu tax a ñëwam. falilu rek. falilu rek. ko tuddee. jëf jii nga ko tuddee. jii ngeen ko tuddee. jii ngeen ko tudde moo war tax ñëw. muy lu yàlla gërëm. muy lu yàlla gërëm. nga dégg ko nekk ci dëkk bii. nga dégg ko nekk ci dëkk bii. ñëwul te ñëwoo fekk si leen. te ngeen woo ko te ngeen woo yu bor ba. ndax kër gu ne li ndax kër gu ndax li tax mu sañ ne kër gu ne. mbooloo mbooloo suñu àndee. mbooloo suñu àndee. faaw ñu am njiit. faaw ñu am njiit. wala dëgg du mën a nekk ci ñoom. wala dëgg du mën a nekk ci ñoom waaw waaw. te mbooloo te mbooloo mii ci dëkk bi moom. te mbooloo mii ci dëkk bi moom. kër gu ci ne. kër gu ci ne. Serigne Fallou fa. Serigne Fallou dem na fa. wala mu dem lu fa. wala mu dem lu ci bis yu mel nii. wala bisu borom kër ga rek. bisu borom kër ga rek. muy jëwriñu kër ga. muy jëwriñu kër ga. ñëpp nangu lii muy wax nag. ñëpp nangu lii muy wax ndax gis nañu ko. kër yëpp nag. kër yëpp nag ndax sëb sëriñ sëb sëriñ. nee sëb sëriñ. këram këram. wala muy kër sa sa sëriñ kër mooy wala muy kërug sa sëriñ. wala muy këru. muy këru. sa sëriñ yëpp sa sëriñ wala sëriñ atam <laughs> lu mën a xew daal. foofu dara xewe rek. sëñ Fallou lebal na ñooñee. lu jar bu ñu déggee dara am ci baram. war a mën a bàyyi seen i itte te ñëw ca loolee. ndax moom de wootewul benn bés. bisub maam du bisub baay. du bisub maam du bisub baay. kon ku dégg bisam. bu ñu ne moom la ñu ko jagale. ngor la jom la fula la. te nangoo fay bur la bor la. dem ca dem ca kalawoo. demal demal ca loola. Ah, dem ca kalawoo. demal ca kalawoo. ndax dégguma ko. ndax dégguma ko. layu murit la layu la. yëguma ko. yëguma ko. layu murit la waaye ñu woo la nag. ah amatoo lay de. loolu laa bëgg a wax rek. loolu daal la bëgg a wax. laa jublu ci kàddu yi. loolu la jublu ci kàddu yi. rawatina nag nun ñi nga xam ne. sunu lépp sëriñ Falil rek la. kon suñu waxee bis bu mel nii. tudde ko sëriñ Falilu. sunu amoon na ngant nun kon danoo du teenu teggi ngant la. ba jëfee bis ba. ba jëfee bis ba. sëñ Ebo Falilou c'est sëñ Cheikh li mu bëgg a wax noonu moo di ñëwal daayira bii. ñëwal daayira bii. ñi ko ñëwal. ñi ko ñëwal. ñoom tur wi rek war na leen ñoom tur wi rek war na leen tax a ñëw. sëriñ Fallou la ñu ko tuddee ji. ndax li sëriñ Serigne Fallou leble dafa bari de. ginnaaw amoo foo ko fayee nag. ginnaaw amoo foo ko fayee nag. ñele bor te fay. moo ne ñele bor te amuñu lu ñu fayee. ñu ngay fayee nu ne. bu ñu lebee xaalis amu xaalis. bu ñu lebee xaalis te amuñu xaalis bu ñu fayee. te kii di fayu. waaw kii kii fayu moom. kii fayu moom. loo ko jox mu jël. loo ko jox mu jël de. kon wàcc nga. Serigne Fallou nag. Serigne Fallou nag. ñuy defee lu yàlla gërëm lu ne. fu ñuy defee lu yàlla gërëm lu ne. ab cëram a nga fa. lam la lebal te mënoo koo fay. la lebal te mënoo koo fay. demal wuy ji woote ba. demal wuy ji woote ba waaw. Serigne Khalifa nga jooju wax. kon yow am nga loo nettali. dëgg de na wax waaw. dëgg de nga wax Fall. Serigne Fallou moo nu tax a ñëw. damay wane rek ni. leenu dal daal ñépp la war a dal. yéen ñi nga xam ne dangeen di ay gor ba noppi gore na ngeen teqamtal lii Moustapha wax kon di ngeen ko xam Sëriñ Fallu wootewul benn bis wootewul kenn benn bis kon nag sa moroomum gor moo bokkal quartier bii muy benn mu woote bis bu mel nii tuddee ko Sëriñ Falilu ak li la Sëriñ Fallu lebal nga dem dem ca bañu gis la day loolu de du yàq ak bokk da koy defar de da koy defar rek faal kon nag bii quartier moom ku am ak wér manal sa bopp dara bu la neexee mu ñi bu ko neexee mu ñëw ndokkeel si leen ni leen bis bi ngeen tudde sëñ Falilu kat tudd nag ak nu mu waxee rek baax na. nu mu waxee rek ci rafetal te ñu xam ne loola dëgg lay doon ci jëfam ak sëñ Fallou. noona baax na. jërë ngeen jëf. kon nag jërë ngeen jëf. yàlla ngeen gudd fan. yàlla na na yàlla nañu gudd fan. damay laajal ñi wax laajal ku ñu ku ñëw te amoo loo xam ne ngeen jëf yàlla na ngeen gudd fan ak noonu. ah ne kon day laaj. ku ñëw. ku te yoroo dara. te yoroo dara. ngeen ne jërë ngeen jëf. <laughs> <laughs> ki ñëw te yorul dal daal moom ñëw na ngir sëñ Fallou nee neen ko jërë ngeen jëf rek ne day layil ñi nga xam ni mënuñoo ñàkk ñëw tamu jar ko te amuñu lu ñu indi bu ko defee yéen ngeen tontu leen jërë ngeen jëf <laughs> ah kay Fall <laughs> wér na kay a sëñ Aramine lii sëriñ bi wax lépp kat nee da ko forataatu ci ndigalul ki leen di wax lo waaye du lu nu xam du lu nu man waaye ñi ëpp ci jotaay bii nag. ñoo desee ci seen biiri xol. ñoo jàpp ci seen biiri xol. ñoo jàpp ci seen biiri xol. ni kii daal li wax dëgg la. kii daal li mu wax dëgg la waaw waaw. wallaay Fall dëgg la moom. ne dëgg la nag sax Fall. laa koy dëgg la Fall. kon sëriñ baa ngi leen di sant. sëriñ Falilou mii. lam am yéene wax leen ko. fa lam lam. lam am am yéene. la mu am yéene. jox ko waa daayira bii jox bii. ci wax leen ko. wax leen ko. xajul ci aw làmmiñam ci aw làmmiñam. la ne ci biir xolam. ci biir xolam. wax gi ma ko waxlu. wax gi ma ko waxlu. mooy jàmm mooy jàmmam. waaye mu wax ko ci làmmiñam waaye mu ko ci làmmiñam moom. day metti ndax yaakaar dafa metti. bis bi ginnaaw da ko dañu ko daan tudde ay kilifa ba mu fukki at ak juróom-ñeent sëriñ Fallu jëkkiwu ko te murit yi kat ñoo fi daxa parparloo de bu ñu sañoon bis bi ñu tuddee sëñ Fallu ku ci yaakaar Cheikh Ibrahima Fall ku ne ku sa yaakaar nekk ci maam Cheikh Ibrahima Fall ku ne muy sa buntu ci Serigne Touba boo sañ bu nu sañoon nag nga fekke ko rawatina waa kër sëñ Modou Aminta waaye yow suñu aramin yaag waa daaira bi neexul ba neexul waaye nag da ngeen a sot de ndax ay ay xeexkat lanu xam nanu ko nuy sot ak ko nuy sotle moo féete kaw nga wàngar ci boo fa yar jox ki ngay xeexal ma song nga téq ma <laughs> naa ko sutuma la duma ko nangu de <laughs> ne liggéey bi nu nekk rek a tax waaye bu doon liggéey bi <laughs> daan ñëwee kan ne ne nu dul nii de ndax genn wàllu liggéey bi bu ñu déggee bésub sëriñ Fallu faw ñu ñëw ca ndax da cee am ñoo xam ne ñoom bañuñu dañuy wàcc dañ bi nuy wàcc loolu wolof naan loolu wolof naan mënuma mënuma sulli ab sëb ne foofu lan toll woon <laughs> bi ñëw alamin ne bi ñuy ñëw suñu alamin kenn mënunoo tax a ñëw ñun ñii kenn mënunoo tax ñëw ñun ñii lu dul sëriñ Fallu rek waaw waaw amuñu pexe kay waaw ku tawal suñ Fallu faaw ñu fekk si la. loolu nag moo tax kon noo ngi ñaan sunu looloo tax kon noo ngi ñaan sunu borom. ci turu jëwriñ ji nga xam ne. danoo def nu de aw làmmiñam di ko waxal di ko defal. di ko waxal di ko defal. mu ne waxul jëmmam de. jëmmi ñi mu bokkal ñépp a bokk loolu. kon mbooloo nag suñu àndee faaw am njiit bu ngeen déggee sëriñ bi naan leen sëriñ Moustapha mooy samay bët mooy sama làmmiñ mooy samay tànk loolu ña dalul baa ci seeni nopp lay yem waaye du àgg ci seeni xol ndax xam nga fekk na nag ku ma bokkal ku ne kàddu gi yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir kàddu gi ndokk bi nga xamee ni ki ñu ko wax moom xàmmee na moom xam na li ñu ko wax moom ne moom baat boobu daal moom ñëpp ko bokk ko yaakaar suñu mu dem tafal rek tàbbi nga ci kàddu gi nga xam ne mooy mooy sa bunt ci Cheikh Ibrahima Fall kon sëñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu borom ñaan gi nga xam ne moo matali yëpp ndax na ne loo ñaaral murit yi lu mu yaatu yaatu am na lu ñu bëgg loo xam ne xam waxoo ko yaa ko waxul rek de waaye bëgg nañu ko waaye soo leen nee lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg yàlla na ngeen ko am lépp tàbbi na ci matale na lépp tàbbi na ci ah, sëriñ maa ngi ñaan li ngeen bëgg ci daraje Cheikh Modou Falilou Fall eh, daraje Cheikh Moustapha daraje Serigne tubaak ak Cheikh Ibrahima Fall. daraje ki tax sunu borom bind lépp. ki daraje sunu borom bind lépp muy Moustapha alayhi salaam. sallallahu alayhi wa li ngeen bëgg yàlla ngeen li ngeen bëgg yàlla na ngeen ko am amiin. yéen waa daayira bi ak noonu yi ñëw. ne lu ngeen yaakaar nag ni. war naa topp ci ñaan gi. wala mën na cee topp. wala mën na cee topp. jort rek la. jort rek la. waaye ab jaam mën na weesu. ab jaam mukk am la bëgg bëgg rek. kon li nu bëgg yàlla nanu ko am amiin. sëriñ Aramine. sant ngeen sëriñ bi nu nekk. sant ngeen sëriñ bi nu ne. waaye sant sëriñ bi nag. waaye sant sëriñ bi. ngeen pànk ma. ngeen pànk ma. sëriñ Mbaye Jaxate mu ni. sëriñ Mbaye Jaxate mu ni. sant sëriñ bi. sant sëriñ bi. sëriñ bi sant laa ko gën. sëriñ bi sant laa ko ci am murit. ci ku sëriñ bi sant yow nga gën. ku sëriñ a sant. yow nga gën. nga gën. li sant sëriñ bi neex neex. wallaay Fall li sant sëriñ bi neex neex. sëriñ bi sant laa ko gën dàq. te sëriñ bi sant na leen nag. wax na ko ci aw làmmiñ ba ngeen dégg ko. waxoon na ko ci ay làmmiñ ba ngeen dégg ko. kon jërë ngeen jëf. kon nag jërë ngeen jëf. lu ngeen gàttale seen wax ji ah? lu ngeen. ni ngeen ni ngeen gàttale kàddu wax. ni ngeen gàttale seen kàddu yi wax ji. te mu fasu. te lool lool. te lépp dëgg. te lépp di dëgg. noonu la kàddu yi gàtte. noonu la kàddu yi di gàtte. waaye noonu la fasoo. lépp ngi ci biir. lépp ngi ci biir. li ci xolub sëriñ bii. toog. mënu ko wax ci làmmiñam. mënu ko wax mënu ko wax moom ci seen la ci làmmiñam ngeen di toog de. mënu ko wax lu ci wenn làmmiñet nag. kon nag jërë ngeen jëfate jërë ngeen jëf قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن